ay cigarette yu ñu tux ba noppi ay biteelu sangara yu ñu naan sànni ko ay paketu cigarette lañ fekk ci centre commercial bi nga xam ne mi ngi nekkee ci mbaar ya ci quartier Madiana ay defkatu ñaawteef ñooy nekk ci cantine yi nga xam ne kenn nekku fa dafa def jëf joo xamante ni dañ koo tere ci dëkk bu sell bi di Touba di tux naan ginz ak a def jëfi ñaawteef loolee askan wi di ko dëggal waaw loolu day moom lu ma mën a dëggal la ndax lu ci bari fekk na ma ci Madiana ndax bërëb su fekkee depuis 89 ba léegi yaa nga fa kon lu ci bari xam nga ko ah mbaar yi daal li ma ci mën a xam moom ñàkk dëkk bu ñàkk sécurité la lool muy Madiyana gii ah ñi fi dëkk nag jéem nañ ci côté bu nekk bëgg mu saafara waaye mel ne mënut a saafara ndax yi ci bari ñi koy def yaa ngi toog fi ñu nekk janoog moom te loolu mënut a saafara kon loolu la koy saafara moom nun mën na noo yor suñu kàddu di ñaan dimbal ak jooy waaye mën nu ko faj muy jëm ci wàllu sécurité bi. ñi koy def moom mooy mooy ñiy jaay yu bon yeeg yi ñuy toxoog yi ñuy naane moom am na fi waaw toxoog naan sàngara am na fi yëpp am na fi waaw bari lépp lépp fi am moom. waaw kaaraange wax nan ba sonn ndax daam mii fi jóge léegi wax yoon nii ba dem tool na tay ay yat la ñuy yor fi bu tokk saane ku yor yamba wala kii ñu dóor la ba kii waaye loolu daa dem ba boo ko boobu da nga ci am problème. dëgg la am na ndax fii dangay toog sa kër même boo toogoon sax sa kër di féexlu mën naa am waaju ne layu ni cëpp ci biir kër gi bu dikkee mën na laa kéréel mbaamu mu sa njaboot bu la gisee jenn alal joo xamante ne ju ko ñor la mu jël ko. ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi ak ñi dëkkee ak ñoom ci quartier bi sonal nañ leen lool ndax nee ñu saa ne ñuy amal ak càcc ak agressé nit ñi. lépp ci ñàkk kaaraange. ci sécurité léeg-léeg ñu bërki dem rek fii fii lañ dóor su ndaw nangu portable am ah fii da nga fiy gis uh, ñu fi ñu fiy nangu alal di daw moom di dem ah da fi gis ay xeex yoo xam ne tegul fenn ci ñàkk kaaraange doo nga ko waral ak uh, ak réewande ah. ndax ñun mënatuñu yor jur mënatuñu yor alal loo ci yor ñu ñëw fi jël ko dem moom. ñàkk kaaraange gi nag askan wi jooytu nañ ko fu ne rawatina ci ñi nga xam ne ñoo di takk der yi waaye saa su ne ñu ñëw fii te képp koo xam ne jàpp nañ la doo fa yàgg ñu bàyyi waat la. nga xamante ñu ci bari bari na yoo xam ne gis nañ leen fañ nekk ñu ngi leen di gis di janoon ñoom waaye nag nun moom ay civil la nu mënuñ ci dara danoo sañ nanoo rek jàmbat suñu yor jàmbat jàmbat ko police bis bu ne mu ñëw fi gendarmerie bis bu ne mu ñëw fi xanaa kay ñi koy def dañoo dëgër bopp ñëw ñu ngi fii ñëw di dem woote gi wàllu saafara ginnaaw ñoom xam nañ fi mu nekk kay ñu fii ñëw di dem ak dikk luñ leen di wooyee nun nun kay duñ leen woo xanaa kay ñooy jëkk ba àgg ñëw fi xam ne fii ñu doon raxas xëy na am na lu fi tàq ñu war a dellusiwaat war koo raxasaat loolu lañ ci am waaye ñoom xam nañ li fi nekk ñoonu gën a xam foofu maanaam police dana fi ñëw waaye ku ñu jàpp fi ñu toy tey jii bala ñoo añu gisaat la fi noonu waaw ku ñu jàpp fii ku ñu jàpp fii ci kuy jaay wala ku yor lu ñu naan bala ñoo julti baanu gisaat la fii xaw ma nag noonu defa yow yéen police jàppee balaa ngoon ñu saa leen fi ñu duñ romb fii di dem ak ñëw parce que nit ku def ñaaw téef boo ko yóbboo danga nga koo war a teg ci yoon mais teguloo ko ci yoon da nga ko yóbbu ba fii di def ay arrangement bu ëllëgee nga bàyyi ko nga gis ko fii muy traîner kooku du yoon. dëkk bu sell bii nga xam ne moo di Touba bëri na ci ay batiment yoo xam ne dañ leen a abandonné ak yu ñuy liggéey te àggul. nekk na bërëb yoo xam ne defkatu ñaawteef fii dañ fay nekk di def lépp loo xam ne dañ koo tere ci dëkk bi lii nag tax na ba askan wi mënatuñoo nelaw ba yandoor wala ñu doxi seeni yitte ci guddi gi te duñu am benn jafe-jafe